maanaam di fausser élection bi boo xam ne dafa joxoon Diomaye vainqueur au premier tour amul ça n'existe pas. d'accord te loolu Diomaye xam na ko Sonko xam na ko si la informé. donc il faut arrêter. merci beneen bi ci topp non non attends c'est important que je le dise. yow li nga wax ni au fait da nga ma attaqué mais c'est pas ça qui t'intéresse xam nga moo la intéressé l'idée que c'est-à-dire que l'idée que ma wax la ni le corps électoral doit être fragmenté loolu mooy sa problème man dama gëm ni jël une majorité écrasante jox ko Diomaye baaxul ci Sénégal. Hmm. man loolu laa. d'accord léegi président xam nga non je dis man. man kenn mënu ma complexer ay affaire ay Amadou Ba je m'en fous man kenn du ma kenn du ma complexer ci loolu. man j'ai pas le complexe de l'opposition je dis ce que je pense. xam nga laa la xamal. démocratie ak équilibre démocratique déjà ñii amaguñu majorité parlementaire ku wax sax ci dëkk bi ñu tëj la kaso boo nee nii Suzanne Camara nga kaso. Euh, nu mu tuddati euh, colonel naka. man nga kaso ku wax cest à réew mi kenn mëntu la wax ku wax ñun la la projet mënatuñ sax jël doomu réew mi ñu am compétence ministre de la santé taxaw ni il faut nga naam nekk am nekk Pastef pour ñu mëna jël sa CV. il a il a reprécisé mais léegi imagine toi moom moom moo quitté imagine toi non mais attends imagine toi yow nit ñu commencé lool nit ñu commencé lool mais bo jëlé majorité parlementaire jox leen ko xana dictature dictature nazi la ñu Yérim ah, lool Yérim loolu loolu bon loolu on va attendre lool on va lool on va attendre Yérim le je fais l'analyse c'est le peuple démocratie non démocratie non démocratie non démocratie madame madame madame la députée ah. démocratie kon ñoo ko déggandoo ginnaaw bi nga xamante ni kii di Ayib Daffé yëkkati na ay révélation Cheikh yirim Seck daal dina ko contredire ñoom daal ñu delluwaat si seen mën-mën suñu toogee ci plateau yi au lieu ñi di idée au lieu ñi di débat au lieu ñi di loo xamante ne mooy génne sénégalais yi ci ndóol au lieu que ñu indi nu ñu régler xëyu ndaw yi au lieu que nu ñuy arrêté gaal yi mais dañuy nekk di def ko débat de personne di xas nit ñi di xarabal nit ñi ay révélation alors que amul benn sondage boo xamante ni mës na wax ni que Amadou Ba mooy gagné wala Jomaay mooy gagné te Jomaay ci boppam xam na ko muy fu leer foo xamante ni Cheikh

sans changer lu toll ni tarafaltal ay ni donc len rek mo sauver Sénégal en 2025 moi le 17 novembre sénégalais yi jël sen responsabilité xamal ni ce nouveau régime kuy d'or di saga. moment n'y ñep da ngeen jaay lu leen neex pour wut majorité dañ leen woon ni ko sax sagaru majorité du ngeen ko am assemblée nationale te donc dañ fi nekk di contrôler bép loi bu ngeen def lepp lu ngeen bëgg a décider da ngeen xam que peuple bi ñi ngi taxaw yéen woté won cohabitation donc Anta Babacar Ngom limu wax deug la li Bougane ngay dañi wax deug la nañu def ben coalition bo xamanteni ñom ñoom ñëpp dañuy jàkkaarloo ak ñom def ben face to face wala ni que fi mën nga def loola neex waaye amna benen booyam boo xamante ni yàlla jox na ko askan bi muy doole bi nga xamante ni moo la fal askan bi aussi mën nañu utiliser seen doole yóbbu ko foofu ci deuxième pouvoir muy législative